su defee tawaaful ifaada gannaaw waroon na Safa ak Marwa du ko du waraat su ñëwaatee minan maanaam bu paree tawaaful ifaada bi dafay ñëw minan fa fanaan si war fa am ñaari fan pour jamaraat yi ci des walla ñetti fan yàlla ne fa man taajjala fi yawmayni fala isma alayhi wa man taaxara isma alayhi fukki fan ak benn fukki fan ak ñaar tabaski wala fukki fan ak benn fukki fan ak ñaar fukki fan ak ñett ci tabaski su jógee foofu nag ajam jeex na li des mooy wërug tàggatoo gi saa yu génn mag yonent sallallahu alayhi wasallam ne seen mujj bërëb seen mujj jëf seen mujj mbir ca Makka na nekk tawaaf balaa ngeen a génn Makka gis nga xaj nii la simple te am njëriñ xajul ifraat mooy borom dafay yéene xaj rek dafay wax labbayka allahumma xajjan buy xarmal xam ngeen ni ñuy xarmale na fexe balaa moo tàmbali lépp luñ ko war a tere ji ci biir aj gi mu fexe ba du ko duggaaleeg xaj muy dagg we muy karaw muy laal parfum bu ko defee yooyu yépp mu def lam ca mën nam ko bëggee balaa moo dugg ci aj gi na sangu ba set na laal parfumam na daggi weyam na wati karawam yi nga xam ne mën naa mu sonal ko bu sangoo ni muy sangoo sangu farata sangu moom lañuy ñuy tuddee sangu lixraam julli ñaari rakka fa lay yéenee labbayka allahuma xajjan dem màkka def tawaaful qudum bu ca paree julli ñaari rakka naan zamzam dox safaak marwa ba su ñetteel ba mu dem minan fa lay fanaan ba su juróom-ñeenteel ba mu dem arafa fa lay yendu ba jant so mu jóge fa dem musdalifa fa lay fanaan ba bët set bu suba jotee ca njëlbenn waxtu wala koy julli ngir la des ca temps mu nekk fa di ñaan bu bët setee balaa jant di so mu jógee fa dem minan sànni jamra watu looj sànni jamra looj watu boobaa nag yeeweeku na lépp lu xaraamoon ci moom dagan na ba mu des sëy mu jógee fa dem Makka def tawaafu lifaadati bu defee tawaafu lifaadati nag mën naa solaat yére mën naa def lépp y compris sëy bu fa jógee dem minan def fa ñaari fan yu bokkul ak fanu tabaski bi walla ñetti fan yu bokkul ak fanu tabaski bi mu dese ko tawaaf alwadaa aj gi jeex su dee dafa def li ñuy tuddee xiraan xiraan mooy méngale ifraat mooy wéetal aj rekk nga def xiraan mooy danga méngale aj ak umra donte am na ci borom xam-xam yuy wax ne dangay dox ñaari yoon safaak maro waaye li wér dëgg-dëgg mooy xiraan ak ifraat lenn rekk leen wutale mooy yéene fi ngay yéene ci ba ngay armal fële ba ngay armal da nga naan labbayka allahumma fii bi ngay armal da nga naan labbayka allahumma xajjan wa umra bële da ne yàlla wuyu naa la yéene naa joxe aj bii da nga ne yéene naa joxe ajak umra ci boole loolu dong moo leen wutale ak gàtt ndax ki def ifraat rey gàtt waru ko waaye ki def xiraan na gannaaw dafa boole dafay rey hadiyu ngeen baal ma bi may wax ifraat léegi tudd naa hadiyu ndax booba maa ngi wax aju yonantu bi sallallahu alayhi waaye kiy def ifraat xët yu waru ko am na ñu ciy rey xët yu nag di jublu tabaski waaye kii def ifraat xët yu waru ko kon kii def ifraat dana def yépp waaye du rey xët yu kii def xiraan nag dafay rey xët yu maanaam liñ wax ci borom ifraat gi lépp moom la aji xiraan ji di def on top of it mu rey xët yu maanaam bu xarmalee la bayka allahuma xajjan wa umratan lay wax bu yeggee màkka def tawaaful qudum julli ñaari ràkka naan zam-zam ngëneel ya ci yonent bi wax dem dox safa ak marwa bu bésu juróom-ñetteelu fan ci tabaski bi jotee mu dem minan fanaan fa bu bët setee mu dem arafa bu jant sooyee mu dem musdalifa bu bët setee mu dem minan bu fa jógee dem makka def tawaaf al ifaada ca minan nag falay sànnee jamratul aqaba su paree moom watu hadiyu it daf koy war ndax dafa def xiraan liñ ko waxee léegi bu fa jógee dem makka def tawaaful ifaadati jógee fa dem minan def fa ñetti fan yu bokkul ak bésu tabaski bi wala ñaari fan yu bokkul ak bésu tabaski bi ngir sànni jamre yi nga xam ne moom la fay sànni bés bu nekk su fa jógee aj gi jeex na saa yuy ñibbi mu tàggu kaaba gi tàggoo ko wër muy tawaaful wadaa bu dee kii def tamattu nag tamattu mooy koo xam ne umra na gannaaw bu weeru koor wi dee ba pare aj ca at ma weeru koor yi dafa dee nga dem umra ji ñibbisi senegaal Sénégal gaa mbaa nga umra ji ñibb si New York mbaa nga umra Paris ci même at mi nga demaat aji yow tamatoo nga def maanaa aj gi jot gannaaw benn weer ñaari weer nga ànd ak ajkat yi dem yow tamatoo nga def walla ba nga demee dangaa def umra ba pare yeeweeku toog xaar ba bésu juróom ñetteelu fan bi nga armal aj tamatoo nga def tamatoo mooy nga umra ba pare yeeweeku aj ca at ma maanaam ca même période aj gole kooku buy xarmal lu muy wax labbayk allahumma umra rek lay wax su ko neexee mu ne labbayka allahumma xajjan mutamattian bihi ila umra na wax labbayka allahumma umratan mutamattian biha ila alxajj labbayka allahumma umra yàlla wuyu si fas yéene jooxe umra goo xam ne dama cay bànneexu ak xaj yóbbaale ci xaj su ko defee mu daldi dem makka tawaaf ba muy njëkk def moom du doon tawaaful qudum waaye tawaaful umrati lay doon su defee tawaaful umra ba noppi mu dem julli ñaari rakka wa rakaat tawaafi bu ko sottalee mu dem naan zam-zam dem dox safa ak marwa daldi jëmp mooy dagg dara ci karawam umraam jeex na mu dal di dellu otelam bu dee otel la dal wala këram bu dee këram la dal wala fu ko neex solaat yére yi ya nga xam ne moom la soloon mu yére normal ba bësu juróom ñetteelu tabaski mu daldi xarmal fa mu nekk mu xarmalee fa xaj foofu lay waxee labbayka allahumma xajjan boobaa moom miixaam mooy miixaay waa xaram ba rek ndax ñetti miixa ñoo am xam nga miixa ñaari façon la miixa waxtu muy miixa jamono ak miixa bërëb miixa jamono mooy liñ tàmbalee muy ñetti weer yi shawal dul qaada dul xejja ci lañ mën a aj miixa bërëb nag ñetti façon la muy miiqatu ahlil afaq te moom la yonentu tudd ne dul xulayfa mooy miiqaam waa madina ak ku fa jaare shaam ak ku fa jaare seen miixa mooy jox fa li tayba li shaami wa misra al juhfa qarnun li najdin zaatu irqin lil iraq yalamlamul yamani atiha wifaq waa madina ak ku jaaree madina seen miqa mooy juhfa ku jógee shaam wala misra maanaam seen miqa mooy dul xulayfa ku jógee shaam wala misra seen miqa mooy juhfa ku jógee najd walla nga jaaree fa sa miixa mooy qarnul manazil ku jóge iraq sa miixa mooy zaatu irq ku jóge yaman sa miixa mooy yalamlam loolu mooy miiqaatu ahlil afaq miiqaatu waa màkk nag mooy fañ nekk rekk mooy fañ nekk rek su fekkee ne miiqaatu man duunal miiqaat miiqaatu man duunal mawaaqiit yi koo xam ne mi ngi ci diggante Makka génn na xaram bi waaye fa dëkk yeggut ci yeneen mii xëy kooku fa mu nekk rekk fa lay xarmale ni ko Abdullah ibn Umar defee moo tax ki def tamattu gannaaw mi ngi màkk fi mu ne du génnaat nag di xarmali pour def xaj fa mu nekk ci biir màkka bu dee ca Kaaba ga la bu dee ca otelam la foofu lay armale bu doon umra nag dafay génn ndax gis nañ yonentu sallallahu alayhi bi muy umra loo ndey Aysatu mu boole kook mbokkam mu génn dem ba ca xell ja foofu nag ngeen di gis nit ñi di fa dem muy masjidu Aysata ak euh, nuñ ko mën a tuddee bokkul daal ci xaram bi kon kii def tamattu ba su juróom ñetteel ba fa mu ne rek lay xarmale daldi dem minan bu demee nekk minan ba bët set fa lay jullee jullee juróom mu xëyee fa moom it dem Arafat def la ñële defoon fa lay jullee tisbaar ak tàkkusaan ci boole yendu fa di ñaan ak di zikkar ba jant so ba paase tuuti gal ga daal so mu jógee Arafat jëm Minan mu jógee arafaat jëm Musdalifa bu yeggee Musdalifa fa lay jullee timis ak gee fanaan fa ba bër set fa lay jëlee ay xeeram dem sànni ji jamratul ba ca minan bu noppee moom it dana watu wala mu dagg ci karawam dana reyit gàtt ndax dafa def tamattu am ki nga xam ne moo def ifraat rek moo du rey gàtt su paree foofu mu dem defi tawaaful ifaadati su ca noppee mu dellusi minan war faa am ñetti fan yu bokkul ak bésu tabaski wala ñaari fan yu bokkul ak bésu tabaski pour yeneen jamra yi su ca paree aj ga jeex na ba ba muy génne Makka mu sog a def li ñuy tuddee tawaaful wadaa watuk tàggatoo gi kon mbokk yi ñetti xeeti aji moo am livraat aj kese nga def da nga naan labbayka allahumma xajjan dem makka jóge fa dem minan jóge fa dem arafat jóge fa dem musdalifa jóge fa dellu minan jóge fa ñëw makka jóge fa dellu minan aj gi jeex qiraan da nga naan labbayka allahumma hajjan wa umra dem makka jóge fa dem minan jóge fa dem arafa jóge fa dem musdalifa jóge fa dellu minan jóge fa dem makka jóge fa dellu minan ba ci jeex tamattu da nga naan labbayka allahumma umratan mutamatti'an biha ila alhajji jóge fa dem makka jógee fa dem minan jógee fa dem arafa jógee fa dem musdalifa jógee fa dellu minan jógee fa dem makka jógee fa dellu minan ba aj jeex li wutelee xiraan ak lifraat mooy yéene rekk jëf yi yépp benn lañ rekk leen wutale ak rey gàtt lifraat borom du rey hadiyu tamattu xiraan boroom dafay rey hadiyu ñaar yooyu rek wutale qiraan ak lifraat tamattu nag moom da ngay omra ba noppi yeewee ko ba bésu juróom-ñetteel ba nga armal xaj soo armaloon nit lu jiitu bésu juróom-ñetteel ba tamattu lay nekk gannaaw omra nga ci weeri xaj yi ba yeewee ko rek boo ajatee ci at moom da ngaa def tamattu boobu nag da nga naan labbayka allahumma umratan biha ila alxaj jógee fa dem makka jógee fa dem minan jógee fa dem arafa dem muzdalifa jógee fa dem minan jógee fa makka jógee dellu minan ba aj jeex yii mooy ñetti façon yi aj ki aji nag bu demee bay war ci daabaam bay génn na taxaw seetluwaat ndax aj mbokk yi mooy ponk bi nga xam ne léppam àllaxira la léppi aj àllaxira bi nga demee bay war daaba ji la war a yóbbu ndégam avion la ndégam oto la ndegam gaal la ndegam fas la ndegam gëlëm la ndégam baaxla la ndégam mbaam la seetal lan a tax nga war a war lii nga war a war kii te moom warut la teraanga jooju yàlla jox la loo def ba mu jox la ko defuloo dara moom la sob mu bindal la lépp teg ci sa xalaqa lakum maa fi l ardi jamian moo leen bindal li ci suuf yépp waaw loo gis rek ci àdduna yàlla nga la ko bindal yow nit yow nag mu bind la pour moom nga sante ko xéwal gu mag ko parce que yàlla sant rek la soxla ci ñun wallahu axrajakum min butuni ummahatikum laa taalamuuna cheyan wa jaala lakum alsamca wal absaara wal afidata laallakum tashkurun ci suratul mulki mu ne qalilan qalilan ma tashkurun moo leen génnee ci biiru ndey indiwaalewu leen dara ci xam waaye mu def ci yéen nag matuwaay yu ngeen xamee muy dégg muy gis muy xel ndax ngeen sant kon jaamu yàlla gi sant yàlla la ci amal gim ñu amal ak lim ñu jox yépp